عليك صلاة الله ثم السلام فبرهام جد عاشق فيك واميق الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد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 sayyiduna muhammadun rasulullah mbokk yi abdul aziz ak ñi nga àndal ñëpp ma leen di xamal ne maag yéen a ànd li ngeen nekk ci lañ ne li ngeen di def la ñuy def li ngeen di wax moom la ñuy wax kon ñun kenn ku nekk ci ñun ak yéen koppi nga ci moromam man coppi laa ci yéen yéen itam coppi ngeen ci man bàyyi nag mooy ki nga xam ne mooy nday mbind yi lépp loo xam ne ci bàyyi la jógee jaaree ci ñun dañ ko tasaare ndax mu gën a yaatu kon gannaaw mbooloo mi daje te yàlla tax ñu daje bàyyi tax ñu daje yonent bi tax ñu daje Cheikh Ahmad Tidiane moo tax ñu dajee mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen di dénk seen diine fonk leen seen diine fonk leen seen tariqa fonk leen seen sëriñ yi képp koo xam ne fa nga naanee xam nga ko na nga ko fonk te képp kuy naan dalaate bàyyi moo koy jox lim naan kon nañ sant yàlla ci loolu te xam ne yàlla jeexagut àddina bi jeexagut ba tey may yim war a maye dana ko génne lépp ba nu yëpp xam ko mu soog a jël àddina bi kon mbokk yi ñu ngi leen di ziyaare ñu leen di gërëm ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla na leen yàlla yokk yaram ci zaahir ak ci baatin yàlla yàlla ubbi bunti wërsëg yëpp jafe-jafe yi yëpp yàlla ko yàlla dindi ci barke Baay barke yonent bi barke Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu amuru ala diyaari diyaari layla uqabbiluna aljidara wala aljidara amuru ala diyaari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

ربنا